élection yi ñu jëm amal le 24 février 2019 muy ay élection présidentielle fii ci toll eh, juróomi candidat ñoo am candidat candidat sortant bi la candidat Macky Sall coalition Benno Bokk candidat IDI, Idrissa Seck, coalition IDI 2019. Candidat Sonko, de coalition Sonko, président. Candidat euh, Madike du candidat Madike 2019. Candidat euh, Issa Sall di candidat parti pour l'unité et le rassemblement du PUR juróomi candidat yooyu ku ci nekk ci ñoom fii mu toll nii bind nañu daldi nañu ñun ñooy candidat yi waaye ni koy ni ñu ko yoon mayee désigné nañ diw mii moom mooy suñu loxo ak suñu nopp moom moo ñu teewal ci yéen ku ci nekk ci ñoom list boobu tamit bañ ko jotee ci ku ci nekk ci ñoom laataa ñuy amal bés bii ku ci nekk ci ñoom jox nañ la convocation ku ci nekk ci ñoom woo nañ la téléphone ne la bés sàngam danañ amal ndaje nàngam comme ni la ko yoon mayee sàkku nañ ci yow nga teew fa am naa yaakaar yi tamit ne ñoom ñépp ñëw nañ xëy na après dinañ ci am lu gën a leer euh, loolu nag mooy li war parce que li ñuy bugg mooy comme wàllu élection la lépp luñ ciy def dafa war a nekk lu ñépp yëg lu ñépp xam li ñuy bugg mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo teewal candidat yi ñoom la candidat yi désigné comme ay au auprès des autorités administratives ñu accessible ba saa yuñ leen mun a jotee ñu jot leen partage ak ñoom suñu ay information ak suñu ay préoccupation yaakaar nañ ne loolu mooy jéego bu njëkk am pour ñu mun a organiser lii ñuy organiser ci jàmm Euh, bañ ko dalé di wajal yàgg na depuis ñuy def refonte wala sax ñuy def révision yi maanaam ubbi révision yi mois de euh, euh, janvier la woon ah ubbi révision yi pendant deux mois ubbi liste yi pour électeurs yi mun a bindu bañ ko defee it bëri na ñu bindu ñu bindu yit bëri na ci ñu nga xam ne nii tey seeni carte génn na am na ci ñu nga xam ne ñëw nañ jëlsi ko am na ci ñu nga xam ne ba tey seeni carte yi ñu ngi ak ñun am na ci tamit ñu nga xam ne seeni carte génnagut am na ci lim bu day ni vingt cartes yoo xam ne buñ ko boolee ci département bi yépp mu ngi ci suñu loxo ñu ngi koy wuta jox seen borom créé nañ ay commission ci gox yépp presque commune boo dem rek am na commission bu ñu fa taxawal bu nga xam ne nii pour distribuer carte yooyu la boobu ba tey nag commission yi ñu ngay fonctionner ay nit la ñoo xam ne administration ñoo leen fal ba pare di leen fay seen liggéey seen liggéey nekk rek distribuer carte yi dem nañ ba nga xam ne danoo wax sax sous préfet yi nañu fexe ñu rendre commission yooyu itinérante na commission yi di wër na am benn boo xam ne xëy na dina nekk fii ak bu nga xam ne day wër pour rek carte yi ñu yore ñu mun ko jébbal seen borom balaay bésu vote bi loolu tamit ñu ngi ci wande liy firnde daal mooy euh, li def ci carte suñu loxo yoo xam ne joxeeguñ ko lim bi takku na lool lool lool waaw romb nañ vingt mille cartes yoo xam ne ñu ngi ci ci suñu loxo te joxeeguñu ko euh, bi ñu paree révision bi yëpp ñu dugg ci toujours ci wàccaayu élection yi euh, recenser matériel électoral biñ ko recenser ñu xayma ñun li ñu yore woon ku ci nekk li nga yoré ci matériel ak li la manqué ci matériel bañ ko recenser ba xam ko djébal ko Dakar ñoñu tamit lépp luy matériel électoral ba mu def bulletin yi tey mu ngi fi am na ci lu nga xam ne sax bi mu ñëweek léegi ëpp na weer maanaam tey urne yi isoloir yi ak tout le petit matériel ah réceptionné nañ ko ba pare encre indélébile ak li mu àndal yépp ku ci nekk ci autorité administrative yi yaa ngi yore matériel boobu noonu sa biir sa biir bureau di xaar bés bi jot ñu yóbbu ko ca bureau de vote ya ba mu des nag bulletin yi bulletin yi nag mënul woon ñëw comme teel a ñëw comme yee ni mu teelee woon ñëw parce que bulletin yi bala ñuy ñëw fokk ñu xam yan candidat la ba pare doog a mun a dem commandé ji ko waaye démb bi ma ci mujjee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu élection yi ci Sénégal ñu ma ne am na ñu nga xam ne sax tey jii nii seen bulletin yi dana commencé dem donc am nañ yaakaar ne fii ñetti fan ba ñeenti fan danañ jot bulletin yooyu muy nag ci ñun ñi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi organiser ay élections xëy na man sax yàgguma ci lool diggante 2009 la ak léegi mais boo jëlee sous-préfet bii Mbuup Medoune Mbuup 96 ba tey mu ngi organiser ay élections am na keneen ku nekk ci ñun 88 ba tey mu ngi organiser ay élections amul ci benn bu nga xam ne nii lii ñu am ñun ren ci wàllu réceptionner matériel bi ci temps am nañ ko. muy lu rëy rëy rëy pour ñun parce que loolu moo ñuy mën a permettre ñun ñu ñu teel a xam lépp lu manqué ci matériel bi conditionné ko bureau de vote par bureau de vote ci teel fas yéene ko yóbbul ba nga xam ne lépp lu ci manquement danañ koy rectifier balaay bés ba alors loolu nag lu am solo la am nañ yaakaar ne bu fekkee ne Euh, noonu la demee xëy na euh, euh, lu bëree bëree bëri dina wàññeeku ci wàllu lii amu fi fekkuñ lii fii gisuñ lii gisuñ lii n'est-ce pas alors matériel boobu noonu tamit biñ ko réceptionné ba pare comme ni ma ko waxee pour ñu yóbbu ko ci bureau de vote yi dañoo jàpp ne 48 heures avant maanaam bu fekkee ne dimanche la ñuy voté aljuma war nañ yóbbu matériel bi tey jii ci suba lañ amaloon daje ak képp kuy force de sécurité et de défense fii nii pour ñu waxtaan xool couverture sécuritaire bi nu muy demee ba nga xam ne ñoom li ñu bëgg mooy vendredi ci ngoon ñu nekk sur place ci lieu de vote yi pour mun a réceptionner matériel bi donc matériel boobu nga xam ne yore nañ ko ñun ajjuma bu neexee yàlla eh, ajjuma bu mujj balaay dimanche bi ñuy voté incha allahu rabbi danañ ko jëbbal mboolem bureau de vote yi danañ ko fa yóbbu fekk alkaati yi gendarme yi ak militaires yi ñoom ñu nga ca bureau de vote ya ba pare pour ñu mun ko sécuriser eh, ñu gis ne rek ci wàllu préparation moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci te xam nañ yaakaar it ne su àndeek ñaan gu nangu incha allah euh, wàllu organisation matérielle moom du ñu ci bëri jafe-jafe li may wax nii yépp nag maa ngi koy wax sous couvert Sénat FEDA bu Thiès lii nga xam ne bépp acte bu ñu jël bépp courrier bu ñu jot bépp acte bu ñu posé dañ koy support superviser matériel bu ñëw yónnee nañ leen ne leen matériel bii ñëw na bépp acte bu ñu posé it jot nañ ci li may wax moom mun ci indi firnde euh, bu weesoo wàllu matériel boobu nga xam ne organisation ñun biñ ñu sant ci loolu rek la aj ah li ma bëggoon partager ak yéen mooy peut-être ni nga xam ne noonu la euh, euh, carte électorale bi demee ci département bu Thiès département bu Thiès bokk na ci département yi ëpp électeur ci réew mi bu jiituwul moom mooy ñaareel bi xëy na gannaaw Mbàkke euh, ñu ngi am nous avons 363 501 électeurs 363 501 électeurs 363 501 électeurs Nous allons répartir sur 290 lieux de vote Sur 290 lieux de vote À 774 bureaux de vote 774 bureaux de vote dans le département de Thiès. 794 774 bureaux de vote Nous ñu gis que avec législative législatives ak ont été lu ci yokku ci bureau de vote Les ko waral nak moy législative par exemple département Thiès 740 bureau de vote la amoon 740 bureau de léegi 34 bureau de vote yokk na ci département Thiès 288 lieu de vote la amoon léegi ñaari lieu de vote yokk na ci muy euh, euh, lieu yaakaar naa benn bi euh, Eh, nootooy moo am ñaari hmm? euh, ñu ngi woon ci trois cent trente mille six cent vingt quatre électeurs léegi ñu ngi ci six cent mille yokk boobu électeurs yi yokk moo waral bureau de vote yi yokk parce que léegi dafa am nombre boo xam ne bu fa bureau de vote yeggee rek machine bi day créer boppam beneen bureau. donc loolu mooy indi yokk bureau de vote yi yokk lieu de vote yi tamit bañ ko waree def maanaam bañ waree changer carte électorale bi fii ci département Thiès danoo wax sous-préfet yi ku ci nekk na woo kuréel gii ñu woo tey mooy comité électoral bi ca goxam toog ak ñoom waxtaan ak acteur politique yépp ñu xool seen biir ñoom yan coppite lañ war a mun a am ci carte électorale bi su préfet bu ci nekk woote daje boobu ah ñay dem dem ña teewee teewee ña fekkee jotaay ba fekkee ko ña ca amoon xalaat wax ko ñu discuter ci ba ku nekk jàpp lenn loolu tamit bañ ko ñoom ñëpp bañ jàppee ku nekk jàpp lenn jébbal ma rapport bi ma def synthèse bi woowaat leen ñu ñëw toogaat ma présente leen li nga xam ne proposition modification carte électorale yi biñ leen ko proposé ku ci nek wax ci xalaatam ba ñu japp lenn loolu moo waral bépp coppite boo gis rek ci carte électorale bi te mu ñeel Cees nii la amee ci anam yii lañ ko amalee mooy waxtaan bi ci base bi di ko yéegal di ko yéegal ba dem ba ñuy organiser élection yi Dakar ñu constater rek ne lii mooy waa Thiès yi la juboo bañ dajee loolu la ñuy adopté li may wax rek mooy li ñu seetlu mooy ñetti communes yi nekk biir Thiès buñ boolee seen potentiel électoral ñoom ñett mooy ville de Thiès kon moo ëpp électeur yeneen communes yi des yépp ci département bi buñ boolee la am maanaam boo boolee commune yeneen yépp ñeenti commune yu Kër Moussa yi ñeenti commune yu Ceneba yi ñaari commune yu Nooto yi nga boole ko ak Xombol ak Pout li ñu am ci électeur ñett yi nekk biir Thiès buñ leen boolee ñoo ko ëpp loolu jàngat la bu ñu gis ci ci carte bi ak ci électeurs yi euh, muy wàllu wàllu carte électorale bi comme ni ma ko waxee euh, dinañ sax gën a defar document bu nga xam ne après dañu koy bàyyee journalistes yi su ko defee ñoom lépp luy information buñ wara xam statistique buñ wara am ci walu élection yi ñu jébal leen ko ñoom ñu traité ko ci biir commune yi tamit seetlu nañu ne commune bu Thiès Est mooy commune bi ëpp électeur ci département bi moom moo am 78 473 électeurs commune bi ci bi nga xam ne moo ci gën a néew ay électeurs moom moo mooy commune bu Njéyeen Sira moom moo astafurla mooy commune bu Canaba moom moo am 11 942 électeurs donc ñu gis ne commune bu gën a néew électeur ci biir département bi romb na 10 000 électeurs loolu euh, bëriwul fu mu am donc euh, Thiès dëkku électeur la bëri na ay électeur ñoo xam ne la yàgg nañ ci te euh, li ñu gis tamit mooy taux de participation yi souvent tamit dina baax surtout ci biir ville bi ah dinañ am ville bi mooy ëpp taux de participation moo ëpp électeur waaye tamit mooy ëpp taux de participation n'est-ce alors euh, je pense que ni que euh, nous li nga xamné l'assistance partager ak euh, assistance bi ci lu jëm ci matérielle bu l'élection. yi may wax rek ni par rapport ak liñu que nous avons fait ñu dugg ci campagne électorale bi campagne électorale boobu mu ngi démarré dimanche dimanche 3 février ci la campagne bi di ubbi am na ñu nga xam ne nii bind nañ ñu wax déjà ni fii la ñuy démarré seen campagne am na ñeneen ñu nga xam ne tamit bind nañ ñu jébbal ñu seen programme campagne dinañ ko waa démarré feneen waaye xam nañ ban bés la ñuy nekk fii ñooñu mooy candidat yi du tee du ñàkk tamit ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom wala ñu leen di ñi leen di jàppale di amal ay jotaay di amal ay ndaje ci biir dëkk bi waaye liñ leen di fàttali mooy li leen yoon sas ci loolu maanaam bu dul campagne électorale manifestation ci mbedd bi li ñuy tuddee voie publique réunion ci ci mbedd bi yoon dafa am nu mu ko tëralee dafa wax ne balaa nga koy def dangay def déclaration bo xamné dina def ñetti fan 72 heures révolu ñetti nit ñokay signé dina nangam wax nga préciser itinéraire wax wax wax amna lu yoon wax ñi yag organiser ay marché yooyu xam nañ euh, wande bu campagne électorale nak yoon daf ko yombal dafa né réunion électorale yi c'est des réunions libres kum neex nga nga def ko waaye nak dañ laa sas lu mu gàtt gàtt vingt quatre heures avant na nga bind euh, autorité administrative bi yëgal ko ko na nga bind autorité administrative bi lu mu gàtt gàtt vingt quatre heures avant yëgal ko ne ko ëllëg kat jàpp nañ ne dinañ def fii nangam loolu nag maa ngi ciy maa ngi ciy ñaax plénipotentiaire yi loolu mun na indi ñu ñàkk déggoo ndax bu ko kii defee kee defu ko ñun munuñ jàpp ne ki nga xam ne defu ko war na fa mun a nekk hmm? bu fekkee ne ñaari coalition danoo daje danoo nar daje ci benn bërëb même jour même heure quand nga sais que a déposé déclaration am le droit yoon faire droit mu def ko fa keneen ka day changé bés wala mu changé waxtu wala mu changé lieu C'est tamit que ñu ci après du dem di wax wala wax yow yow yaa saytuwul li la yoon may nga jël ko wala boog nga nga nga def ko am na fi nag ñu nga xam ne loolu mooy seen liggéey fàttali la li yoon wax mun nga ci ànd walla nga bañ ci ànd waaye moom la yoon wax moo tax danoo sàkku ci sunu collaborateurs yi dañuy ubbi registre ba pare def fichier boo xam ne képp ku ñëw déposer déclaration ñu bind ko ak heure ba nga ko bind ak bés ba nga ko indi su ko defee ñu mun a méngale boo ñëwee it buñ la waxee ne la yow kat sa fii nga bugg a def meeting am na ku la jiitu ne moom moo ko fay def boo ko wóoluwul ñu génneel la registre bañ ko bindoon waaw parce que noonu la buñ ko jëlee boo ko indee dinañ ko jël buñ ko jëlee ba pare na xool ne bës boobu ci même lieu bi ak ci même waxtu bi am na koo xam ne moom moo fa nekkoon di di moo fa déclaré manifestation boobu ci saa si dañ lay bind daal dina la jot nañ sa kayit waaye nag lii yéeg li ak lii am na ci léegi nag lii yéeg lii moo la war su ko defee loolu tamit bu amee ñu comprendre ko noonu li ñu gëm ni mooy paramètre bu njëkk pour ñu dem ci élection yoo xam ne jàmm rekk a ciy am mooy ñu yemale ñépp te fasiyene yéene appliqué ñépp yoon su ko defee ah boo ci àndul nga yëg ne yoon a mel noonu loolu mooy wàllu campagne bi xanaa di dellu rek xëy na loolu imaam yi ak délégué de quartier yi danañ ci ñëwaat delu rek di ñaan di ñaax askan wi ñu dugg ci ak ñu jublu def ko ak jàmm ak dal ku nekk campagne li ngay campagne fi nga wara dem nga dem fa bu kenn du togn kenn kenn du yene kenn ludul jam su ko defee ñun ñëpp ñu mun a ñu mun organiser lii ci ci dal waaw li ñuy mooy vraiment sant bu baax monsieur le préfet sama doom ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko associé imam yi ci biir li nga xam moom mooy euh, électoral ndax xam na ni ñoom it euh, li ñuy xool di jàmm di ko wër xam na ni ñoom imam yi kenn du dem bàyyi leen donc ni ñu si boole nii vraiment ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ñaan yàlla yàlla ñu suñu borom defal ko ndam ba liggéey bi nga xam ni wóol nañ ko ba teg ko si loxoom mu am si lu kawe njortam ginnaaw loolu nag li ñuy yaakaar jaam yaakaar rek la am mooy ni li ñu war ñun mooy même lii laata muy ñëw sax li ñu war ñooy mooy fexe di xeex fexe di góor góor lu fexe di tawaaya di sensibiliser population bi si jàmm ndax comme ni ko préfet waxee lu nekk mën nga ko woo mu dëkk ak yow mu des lu dul jàmm jàmm rek moom mu dëkk doomu aadama kon nag ñun du ñu dañ mukk di woo nit ñi si jàmm ndax yonente bi moo ko wax si benn xadis ne na ngeen moytu fitna ndax fitna bu ñëwee du yem si bopp ci ko yee rek kon nag ñuy soññ ñëpp dina leen xamal ni mbir mi daal euh, Sénégal yemul foofu day jàll commencé wul fa suru fi yam kon nag euh, ku nekk nga xam ni ki ngay xeexal di tuur deretam wala ngay nga ko wax loo xamni ni bu ëllëgee da nga day ngam du rus yéré bokk ben plate bu ngeen di bokk di añ soir kon nañu fexe ba bu dimanche bu ñu voté altiné ku nek xëy dem liggéey. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du comité électoral départemental qui est une instance prévue dans le code électoral et qui se réunis régulièrement avec les acteurs du processus électoral pour échanger, partager. Et l'innovation cette fois-ci, c'était d'élargir ça, le fait euh, d'élargir ça aux imams, aux délégués de quartier, aux chefs de village. Parce que nous pensons qu'eux aussi sont des acteurs importants du processus, étant des leaders d'opinion, des relais, et surtout dans le contexte où nous sommes, euh, ils ont de lourdes responsabilités et un rôle extrêmement important à jouer dans la recherche de paix et de cohésion sociale. Donc c'est euh, toutes ces personnalités-là, en plus de l'administration territoriale, des représentants des différentes formations en lice, donc les cinq candidats et les autorités locales, que nous avons réunis aujourd'hui et nous avons fait un large tour d'horizon du processus électoral, des préparatifs liés à l'élection présidentielle. Nous avons fait le point de là où nous en sommes présentement et nous avons échangé aussi par rapport aux perspectives. Alors, euh, les perspectives immédiates, euh, la campagne qui doit démarrer le euh, dimanche prochain, le dimanche 3, mais bien entendu, et tout ce qui s'ensuit, tout le reste. Et sur toutes ces questions-là, nous avons recueilli les différentes préoccupations des uns et des autres, que nous avons essayé aussi de prendre en charge. Et cela a été une réunion très bénéfique pour l'ensemble des acteurs, l'administration territoriale que nous sommes, mais aussi pour tous les autres acteurs, y compris les délégués de quartier et les chefs de village, qui ont le sentiment aujourd'hui d'avoir été euh, investi d'un peu plus de responsabilités et d'un peu plus euh, avec des informations qu'ils peuvent utiliser, n'est-ce pas, pour, euh, dans leur sermon de tous les jours.